Mhm. te du la leer leer yàlla ne image bi xamoo góor lu muy wax de. Mhm. waaye dina la wan ne kii di bëgg a wax yëg-yëg lay wax ak yéene. dëgg la sëñ daam génneel photo Cheikh Abdou Lahad amul benn photo booy gis ci sëñ Abdou Lahad te nekkul ci action bu la wan ne bu la wan ne kii li muy wax nii maanaam li mu wax ne sama bakkan laa ci gar action bi dana la ko wan nataal bi rek dana la wan loolu sëñ Abdou tey tey. wabaydu rabbihi wa ibnu cheikhihi ki sëñ tubaa waxoon ne amoon am naa ci moom yaakaar yaakaar jooju tey ñun ñëpp mën nañ seede ci yaakaar yi sëñ tubaa jooju mm-hmm. tey bu yomal xiyaame ñun ñëpp mat nañ seede ne si sëñ tubaa mm-hmm. yaakaar ji nga amoon ci moom def na ko ci noonu mm-hmm. ku dox ci digg mbedd mi sol sa baylaat mbaa nga yorub kaamil mbaa nga solub mbaxtume di dox képp ku leen ne jàkk xam ne yow am nga te sëñ Blaye ko def ñun sëñ Blaye Diop Bichri jërëjëf sëriñ Hamidou waaye jërëjëf sëñ Jibril ci ubbi bu am solo bi mu ubbi tey ki ñuy waxtaane duma la wax yoonu murit mhm. waaye àdduna bépp bu ñu boole woon États-Unis bokk ci Europe bokk ci Asie bokk ci ñu dénk ko àdduna bépp mu doxal àdduna bépp mhm. ci mhm. rafetaay ci transparence ci fit ci njàmbaar ci fulla ci dogu ci wóolu yàlla ci wakkiirlu ci tabe ci woyof ci am vision sëñ Abdul Ahad ku fi jaar la koo xam ni keneen dootu fi jaar ba mel ni moom loolu la yàlla dogal nga xam ni tey aspect bu ne mën nañ ko waxtaanee ci sëñ Abdul Ahad te aspect yi du jeex dañuy jël rek bu ne ñu waxtaan ci li waral loolu lépp mën a am nag ba mu feeñee ki ñëpp yaakaar da wuti ko di sëñ Tuubaa moo waxoon ci moom ni am naa ci moom yaakaar gan gi ma am tey am naa ci moom yaakaar waaye itam sëriñ bi waajal ko ndax la lam ko waxoon ca kaamilam ba ni ko taxawal ci kaamil bu noppee ma dëkk si Touba sëñ bi waajalal ko boppam sëñ Abdul Ahad daa fekkoon yoonu murit mel ni dem na ba ñu bari fuy tànk tàmbalee beew nar cee dugal yu ci bokkul waaye taxawaay bi Cheikhul Khadim amoon ci bi muy ñëw di yëkkati islaam taxawaay boobu la sëñ Abdul Ahad amaat ci taxawaatal yoonam yi ni mu bëgg mu ni mel mhm. mu defaatal ko sëñ Tuuba mhm. xam nga bi sëriñ bi di ñëw fekkoon na fi sax ay jàmbaar mhm. waaye booba lislaam dem na bay bëgg a sëngéem ndax dal nañ ci kawam agressé nañ ko tuutil nañ ko xeeb nañ ko teg nañu fitna yu nekk sëriñ Tuuba ñëw ni na ma ñépp bàyyi man dong may yanu yéen te woon góoru yàlla yépp yëkkati islam yóbbu ko ci niveau boo xam ni képp ku ñëwati xool islam dina taaru ci yow ko mën a xemmem di nga ci mën a bokk mhm. fa zaaka allazi qad jaa awa diinu mayitun mhm. fa axyaa u saxsan fil amaakini maasiya mhm. fa zaaka allazi qad jaa awal ilmu qaidun wa fajara maa qaadu uyunan jawaariya mu mel ni la ko sëñ ahmad jaw waxoon ni sëñ ahmad jaw paxa ñëw nga fekkoon diine islam mel ni lu ñu rey nga delloo ko ruwam ñëwoon nga fekk xam-xam mel ni lu ñuy fawe mhm. nga joxaat xam-xam valeur am mhm. yëpp mu nga koo natt ci sëñ Abdou Lahad solal ko mbub moomu ci li mu taxawoo yoonu sëriñ Tuubaa yi mhm. waaye day jot sëkk ci jëmm ju tedd jooju sëñ Xaamidun li sëriñ Tuubaa gën a bëgg ci àdduna te ku ne man koo waat nga xam ni loxoom bu tedd ba moom rekk la daan jëfandikoo di nangu alquraanul karim lu dul alquran boo ko joxee lay wax tegal foofu alquran daal lay nangu ci loxoom yi ngir mm-hmm. war ma jum ko jox ak bëgg gum ko bëgg mm-hmm. di ko tëral ci ay lalam sëñ Abdul Ahad mooy ki am vision mm-hmm. xam ni alquran dañ ko war a wutal kër dañ ko war a wutal kër dañ ko war a wutal kër fu mu dëkk mu defaral ko daaray kaamil soo déggee ñun la bâtisseur bâtisseur li muy firi mooy koo xam dafa bari lu mu tabax te yi mu tabax benn mënu cee ñàkk ndax yépp ay kislaay la te lépp ku am vision moo ko mën a gis ndax yoon wi da koy soxla. préparation ëllëg préparation ëllëg la waajal. futur mu fexe ba téere sañ Tuubaa bi. Mhm. fexe ba alquran bi nga xam ne mooy dellukaay bi gën a réy ci jullit yi. Mhm. fexe ba alalu sëñ Tuubaa jooju mu wutal ko néeg boo xam ni bu yelloog moom la muy daaray kaamil. Mhm. waaye mu xam ni kilifteef dafa baax. daaray kaamil la ñu nii. kilifteef dafa baax. te képp ku fi nekkal sëriñ Tuubaa war ngaa am sa résidence sa kër goo xam ni. tey bu ganu sëñ Tuubaa ñëwoon fa nga koy yaatal dalal ko fa hmm. sëñ Abdul xam ne yoon wi mënta ñàkk lool mu taxawal këru Cheikhul Khadim résidence Khadim Rasoul hmm. taxawal ko nag ci contexte boo xam ni yombul waaye taxawalin bi tam mu def ci transparence bu yéeme hmm. xam nga bi mu ko taxawalee dañu kër gii ma taxawalal sëñ Touba képp ku yilif yoonu sëñ tuubaa bi rek lay ñeel yaa koy moom feeg yaa ngi fi di fi nekkal sëñ Touba kër gi sa kër ñu la noppee gis ku la wuutu ci euh, jataayu sëñ Tuubaa bi féetewoo kër gi waaye moom mi ko taxawal yilif ñëpp dani sàllaaw su ma fi wàccee woon liggéey përngëlu saabu maanaam saabu bu ma fi jëfandikoo da mu des përngël bu përngël bi dugg sama kër nañ ko bàyyi ci biir këru sëñ Tuubaa bi kii doonu sëñ Tuubaa ñëw wéyal ak man daal di wut ay témoin moom sañ Abdoulaat te moo yilif ñëpp dafay jàngale bonne gouvernance mu wut ay témoin daal di woolu ku ñuy wax greffier ti faati dem booba jamono moo jiitu moo jiite Jurbel mhm. sëñ Abdul Ahad woolu ko woolu sëñ seex jaxate mu mhm. yor soxna may tudd nga ko léegi mhm. woolu sëñ Amsatu Mbàkke mu maam na borom daarul Muxti woolu sëñ Moodu Maamun Ñang ñuy ñeent ñoo xam ni da yéen a jël comme témoin ni leen bu ma fi wàcce woon liggéey sax përëngalu saab bu mu dugg sama kër bërëbu sëriñ Tuubaa moo ko moom ku fi mag yaa ci recevoir say gan xoola boobu gis-gis bu rafet mu gis ni Touba dafay màgg tuubaa day màgg ndax dafa yor loo xam ne tey àdduna bi bépp fa lañ war a ñëw ëllëg seen Jibril junj na ko léegi mu fexe ba murit bu nekk gëm li mu moom ndax Touba mooy sunu moomeel ku wàcc ci liggéey tuubaa ngay dem fa nga bëgg a tëdd kon Touba lañu war a dem dundal Touba mu bëgg loolu mu ni ku nekk sa kër fii sëñ Touba noonu na pujju néeg bi moo lay seereel sa aljana ëllëg kon fexe na ba ñëpp mën a dem Touba loo mën a am nga investir fa doon dangay am kër Dakar nga am këru Touba mënta ñàkk ci muri loolu di mu ngi yaatal dimension Touba ku wax dëkk wax ja marché mu xam ni Touba day màgg mu yaatal marché bi lu mat trois cent trent million mu def ko ci ci booba jamono ñetti téeméeri millions ak fanweer yaatal ko dimension bi ndax day màgg mu xam ni dëkk ku ko wax soxla ndox te ndox dafa jafe te sëñ Tuubaa da ko ñaan boroomam sëñ Abdul Ahad dafa mel ni dafa jël photocopie ci Matlabul Fawzayni li sëñ Tuubaa ñaan yépp muy li ko boroomam dig mu war ko am sëñ Abdul Ahad di ko exécuter à la lettre benn par benn mu taxawal forage ndox mi di balle fu nekk nga di sëñ Abdul Ahad déedéet xam na ni tëli du doy mu taxawu tëli yi xam na ni dëkk day am lumière leer mhm. mu éclairer dëkk bi xam na ni Touba jumaa ji day am dimension mu def yokkum jumaay Touba yépp boo seetee point par point mu ngi yaata waaye nag loolu di luñ ko inculquer luñ ko teel a def ci moom ndax sëñ Touba ko waa waajalal boppam bu ñu fàtte ni mhm. bi mu tollee ci jàng moom sëñ Abdul Ahad mhm. te sëñ am Amsatu Jaxate mi ko sëñ Touba dénkoon moom ak i mbokkam sëñ yi bu rakkam ji mbokka lépp Mm-hmm. sëriñ saalix ak sëriñ abdou samad ak sëñ abdoulaye jaxate mm-hmm. bi mu demee ba seetlu ni yeneen mbokkam yi ñoo ko gën a gaaw ci mokkal boobu ñu ngi tollu ci alquran mm-hmm. mu dem mel ni ku ko jàmbat sëriñ Touba. ni ko ñoom dey fere yi ñu ngi mokkal lool waaye ki ñuy wax sëñ abdul ahad de daa mel ni ñoom dañ koo gën a gaaw ci mokkal gi mu bëggoon de mbàkke su ma mënee am kiis sëriñ bi jël ci ay kaalaam di teggi ay kaalaam ba jot benn kaala ci biir ay yére moom sëñ Tuuba ca daal koy jox sëñ Amsatu ni ko nañ woo soxna Faat Sylla Libaas jox ko nañ ko ci sàlla wutal lu ko jot te ñun kiis liñ ci miinoon mooy kiis goo xam dañ koy bindee naan loolu day wane beneen melaw sëñ nga xam ni morsoom la ko jox mhm. wëlbati ko sëñ bi musal na ko ñamu aljana mhm. sëñ Abdul Ahad ak sëñ mhm. Abdoulaye Jaxate sëñ bi musal na leen ñamu aljana moo tax lu dul sëñ Tuuba safu leen woon sëñ bi rek ci la daan dund sëriñ bi yëmut ak moom ci loolu mu ni ko fàtte mbirum seytaane la mhm. damaa bëgg nga nga mokkal bañ a fàtte mhm. daal ni ko ŋaal sëñ abdul ahad ŋaang sëñ tuubaa tifli ci biir waxal na boppam moom sëñ abdul ahad ba ma defalee loolu ak jëmmi tey amul lu romb sama bët ma gis ko wala mu romb sama xel ma xalaat ko di ko fàtte nga xam li mu amoon ci wattu dangay xam ni jagle la mhm. bi mu noppi bis sëñ tuubaa wàccee liggéey 27 ñuy indi sëriñ tuubaa di ko indi ci dëkkam bi mu taamu muy mm-hmm. Touba. Mm-hmm. sëñ Abdoulaye jaxate wax na ne ñoom ñaar ñoo bokkoon benn lal ci bis boobu. Mm-hmm. mu ne waaye bi waxtu wi ñuy war a denc sëñ bi di jot. sëñ Abdoulaye te ko xamal ni sëñ Touba ñëw na Touba. mu ne waxtu woowu tembe yëg na ko ci yaramam. muy indiwaat bare li ma lay wax ni sëñ Touba dafa summi ko ci sëñ Abdoulaye mu ni dugg si na Touba. bi mu noppee gis sëriñ bi te yàlla dogal mu toll cim njàng te sëñ moodu Moustapha taxawu ko nag. ndax waxal na boppam ci sëñ Modou Moustapha ni keroog ba sëñ Modou Moustapha wàccee liggéey 1945. sëñ Abdoulaat nee na sunu mag jii de mësta xonqal sunu bët mësta tuur sunu rongoñ fu mag di féete rakkam féete nañ fa def na ci ñun njàmbaar def ci ñun dogu def ci ñun fit téye nu téye goo xam ni euh, téye googu de ni mu téye ay doomam rawu ko ndax jàppale gum na jàppale teel ko responsabiliser mu sanc ay dëkk ndax kuy liggéeyal sëñ Tuubaa da ngay yaatal dimension yi da ngay décentraliser. 1932. loolu yàgg na de ci la sëñ Abdoulaye njëkk a taxawal dëkk. 1932 ci la taxawal Daaru Naar. Daaru koo koy première dëkkam ci ndigalu sëñ Modou Moustapha. yemu ci mu jigiwaat fa ci ndigalu sëriñ Modou Moustapha. taxawal beneen dëkk bu ñuy wax. Gelongal. loolu mu ngi ko taxawal ci année 1935 36. pour walla li mu taxawal ci ay dëkk. xoolal baraakan xoolal xoolal dëkk bu mel ni dégg nga euh, gelongal xoolal dëkk bu mel ni dégg nga kàbb gay xoolal dëkk bu mel ni daaru salaam bukki barga nga xam ni ku teel a jug la di décentraliser liggéey sëñ Tuubaa fu ne mu taxawul fa dëkk ci les années trente quarante ba noppee gis sëñ Modou Moustapha ànd ak magam sëñ Fall lu mu fàggu liggéey teel naa war murit yépp ni nit day am dogu soo bëggee sa àdduna jag liggéey la koy may mhm. soo bëggee sa àllaaxiraa jag jaamu yàllaa la koy may mhm. lépp lu mu xam ni yoonu sëñ Tuubaa yi warta am ci loolu ñu koy tudd mhm. di tudd sëñ Tuubaa mu fexe ba génne ko sànn ci biti ni sama bakkan laa ci gar bu ñu fàttali ko 1980 gis ngeen décret bi mu jëlal boppam moom ak doomi sëriñ Tuubaa yi mu fi nekkaloon sëriñ Soyibu sëriñ Saalihu sëñ Murtada ñoom ñëpp a ànd signé mu ni lépp loo xam ni jeu de hasard la muy li ñuy def ay carte loterie bu mu ñëw ci dëkk bi sama bakkan laa ci teg lépp loo xam ne ay polay indi muy football yi ci aju ay cinéma ay bërëb bi pecc kaay caaxaan du dugg fii feek maa ngi fi sama bakkan laa ci gar signé ko ànd koog mbokkam yi mu bokkal Cheikhul Khadim ñu bokk signé ko bi mu teree yi ñuy tere yépp ni bu ñu ko jaay fii donte mbàkke la na génn ci biti am na ci jamono yi ko ñu wax kasati italien la war kasati mhm. ñoo leen fii di jaay mag ñi xam nañ ko mhm. dafa dëgëral bopp ni man kenn mënu ma tere sama yëf yi ma moom mbakkelaayam dugg ma mhm. tuubaa damay jaay li may jaay dégg ngeen kasetam bi ba ko sëñ Abdoulaat yéegee yéegee dañ nag comme wax na loolu ñëpp di ko dégg te man maay sëñ Touba bu mel daf maa défier maa ngi wax ak képp kuy murit nag bu kenn jëndati ci ay boulangerie bu fa kenn dugg bu kenn séqateeg moom bu kenn jëndati ci moom lettre bii la bindoon bi muy tere. mi ngi lettre baa ngi ni bi muy tere. pare am ci signature ñi mu bokkal Serigne Touba am ci signature mboolem ñi mu seqal Serigne Touba. Serigne Abdoul Khadir. gis nga nuu. dama ko gën a agrandiral tuuti. Mhm. nuu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. xalif mhm. général des Mourides et mhm. frères. sousigné. dénonçons par la présente. waaw da nga yóbbu lettre. waaw par la présente. mu ngi noonu par la présente. à l'effet d'une répression systématique. des faits suivants contraires. aux principes qui ont toujours été défendus par Serigne Touba, fondateur de la ville de Touba, sur toute l'étendue de la ville de Touba. Premièrement, vente, consommation de boissons alcoolisées et l'ivresse. kon tere na fa lépp lu jëm ci jaay ak jëfandikoo dégg nga ak joxe nuñ ko mën a amee yombal nit ki ba mu mën a ñëw di jël loolu ñuy tere di ko naan muy xamru bu mu am ci dëkku sëñ Touba bi. muy mhm. sàngar. Mhm. bu ñëwaat ni vente détention et usage de drogue notamment yamba public et clandestin mhm. loo xam ne koy jaay ci biti ak kuy nëbbu te di ko jaay loolu ñuy wax ñax mu bon mi mhm. bu mu dugg mukk ci dëkk bi kenn du ko fi jaay kenn du ko fi amal ak lu jëm ci wàllu drogue tere ko fa mhm. jeu de hasard et loterie lépp lu jëm ci carte xaalis teg teg gi gañe nga nangam nga xam tey lu yaatu la sëñ Abdoulaat ñii la ko dàqee ci dëkk bi vol et recel càcc bu mu ñëw ci dëkk bi wala ñu jaay la alalu nga jënd ko Mm-hmm. yooyu yëpp mu dugg ci dëkk bi dama koy tere tam-tam mm-hmm. tëgg ay sabarak di taaxuraan ak la dugg ci tere na ko mm-hmm. musique yéen ma ko gën a xam danse fecci manifestation folklorique loo xam ni kenn mënu ko layal du dara ay caaxaan ni kese ñuy tudd sëñ Tuubaa du tur am fii sama ne fi et enfin tout ce qui en dehors de ces faits est également contraire au principe de l'islam yemuma ci lii nag lépp loo xam ni dëppoowut ak sunna la yanantu bi jàngale dëppoowut ak alquran li sunu boroom wax ci téeréem bi dëppoowut ak li sëñ Tuubaa yare mag ñi ma yoroon fekk maa ngi koy fekke du fi amee daal ni fee à Dakar le 18 septembre 1980 loolu laa la waxoon le xalif général des Mourides à Touba sëñ Abdul Xaadir la ko àndal di rakkam nga xam nee na ñoom ñaar daa mel ni heure bi nii ak gopp bi ni ñuy ànde du ñu tàqali ko moom sëñ Abdul Xaadir noonu la ñu mel ndax tuuti la ñu magantee sëñ Abdul Xaadir mu ngi feeñ ci Muharram sëñ Abdulaat feeñ ci Korite ñaar fukki fan yeeg ñett kon gis nga magantewuñu lu bari waaw su ko defee kële dafa nekk euh, septembre kële di novembre mhm. kon dañoo jegante lool mhm. mu ni sëñ Abdul Xaadir Mbàkke sëriñ Saaliwu Mbàkke mhm. di seen rakk signature ma ngoog tege ci sëriñ Soxayibu Mbàkke di rakkam ju mbokk lépp signature ma nga nele moom sëñ Abdul Ahad signature ma sëñ Murtadaa ci suuf signature mu boole yëpp signé ko teg ko ci loxol yootu képp ku ko def donte dangaa yor sant wi Ah, nañ jëfandikoo li ñu war a jëfandikoo ci ñëpp dal ci sa kaw mm-hmm. kon kii mooy ki défendre Touba mm-hmm. mooy ki nga xam ni moo taaral liggéeyu Serigne Touba mm-hmm. waaye sëñ Abdul Xaar sëñ Abdul Lahat waxtaane ko danga nga ciy jàngi sëñ Xaamidun ku wóolu sëñ Touba dafa wóolu sëñ Touba dafa bëgg sëñ Touba ba jeex dama lay wax lu yéeme dafa mës a dem dëkk bu ñuy wax paam paam soriwul kàbb gay dëkk la ñi may dégg nañ ko xam Euh, mu dem fa yàlla dogal doon jëm ci dëkk bu ñuy wax mbiri na njool mbiri hmm. na njool ku ñuy wax sëriñ Ibra Wilaan moo fa nekkoon hmm. di kóllëreem hmm. dafay dem nag jaar paam di seet taalibe bu ko sopp lool bu ñuy wax sëñ bilaal pa bilaal faam ca paam ba mu ñëwee sëñ bilaal faam amoon na yitte génn ca dëkk ba nekku fa sëñ abdulaat di kon baax na dama fi doon jaar rek maa nga jëm Medina Njool ba mu demee Medina Njool nag def fa ak ngan ba mu defee ñaari fan ñetteel bi mu war a génn ñibbi nag booba jamono nii communication yombe yombul ndeke am na ko dem fekk sëñ Bilal Faam fa mu nekk ni ko yow di sëñ Abdoulaat jaaroon na sax gisu la mu nga ci dëkk bu ñuy wax Mirina Njool te daa mel tey la koy génn di ñibbi jëmm jooju daal di takk fas mhm. daal ni laay sëñ Abdoulaat ci dëkk bi nar a ñibbi te gisuma ko mhm. loolu du am mukk mhm. takk fas bi muy ñëw bay dugg Mirina Njool dajeeg sëñ Abdoulaat di génn mu daal di raam ci suuf nuyu sëñ Abdul Ahad daal ni ko Mbàkke bal la ju dem ca dëkk ba sëñ Abdul Ahad ni ko sàllaaw de damaa waxoon te woon ak dégg nga sëñ Ibra Wilaan mii waroon fee jaar te tey bu ma ko mattalee damaa war a dellu ca dëkk ba mu ne ko waaye Mbàkke man yow rek laa yaakaar bàyyi naa lépp àdduna ngir sa jëmm ci Mbàkke yow rek laa bëgg soo teggee tey kon sama dëkk bi ñibbi te gisaatuma la wallaay damay génn ci yoonu murid ndax sag bu gën a rëy sëñ Abdoulaye teg na tànk ci man ma dajeeg moom aw ma ko ci sama dund kon nag soo fi duggee ba génn man ma bàyyi yoonu mu génn ci sëñ Abdoulaye daal ni ko lépp luy waral nit gëm sëñ Tuubaa dem ba jëmmi jamono mu nar a waat weddi yoonam bii génn ci dama sababoo ci sëñ Abdoulaye Xaat du am mukk te sama bakkan bii di ma ko may comme dugg ca dëkk rek mooy tax nga gën a gëm sëñ Tuubaa nan dellu ca dëkk ba nii la duggi waat ci dëkk boobu nga xam ni mooy dëkk bi ñuy wax paam seeti waat sëriñ Bilal Faam ni ko man rus naa man sëñ Abdoulaat nit bëgg sëñ Touba. dem ba wan ginnaaw yoonu sëñ Touba muy sababoo ci sama jëf wala ci sama kàddu kon kooku mooy koo xam ni dogoom ci sëñ Touba. ak wóoloom sëñ Touba. jaral na ko lu nekk waaye yàlla may ko nag lu mu mayul kenn gisuma ko ci kenn man mooy saa bu ma see di wax ñun ñëpp mën nañ ko maasee wax saa bu ma see di wax dëgg la communication saa bu ma see di wax bu ne asalaamu aleykum waxuma la jullit de chrétiens yi dañuy rajo di ko dégg Mhm. yàlla da koo dimbali woon ba la nga daan wax ca Omar ibnu Abdul Aziz ba mu yilifee jamono mhm. nga xam ne mala yi sax dañoo dégg ni message am a ngi dox mhm. sëñ Abdoulaat yàlla mayoon na ko bi muy nekk xutba jamonoom yilif léppit da ngay gis ni yàlla doxale na digganteem ak mindeef yëpp wegeel gu ñu am ci sëñ Abdoulaat am ci moom sawku cofeel gu rëy ci sëñ Abdoulaat waaye nag am ci moom benn tëy guñ daan gis ci moom ba su ne asalaamualeykum chrétiens yi laa la wax man du ma fàtte am na ay grand chrétiens yu ma dëkkaloon à Géejawaay nga dégg ñu ni sëñ maaraab yi mooy wax sëñ Abdoulahat dañuy gaaw jël seen poste rajo yi dëgg la mooy wax mhm. kon yàlla moo ko nataloon lépp jox ko dëgg la waaye nag détermination sojaa am mhm. maanaam njàmbaaram mhm. imaanam ngëm yàllaam tawaadu am toroxloom déggam alxuraan bëggam sëriñ Tuubaa waaju ko sëriñ Tuubaa waajal ak fitam wu rëy ak njàmbaaram mhm. moo taxoon lépp nangul sëñ Abdoulaat dëgg la kon kenn mënut a fay jàmbaar jooyu sëñ dëgg la jërëjëf eh, sëñ Abdoulaye Diop Bichri sëñ Jibril taarixal nañu ko ba noppi am lu mu ci woon ci ay réalisation ci nga xam ne bi mu ñëwee rek dafa daal di engagé loolu da wutali loolu te loolu lenn lu ci nekk laataa mu fi jógee accomplir na ko barki démb bu Cheikh Mouhamadul Mountakha lancé université bi ñëpp dañoo taxaw ne ay la yéwén kon Cheikh Abdoulaye ñëwaat na démb sëriñ Galas Mbacke moom sëriñ Alaaji Baara sëriñ Galas Kaltoum maa ngi lay wax léegi bi may tàmbali bëgg gi mu bëgg Cheikh Abdoul Ahad nee na ma su may xool sëñ Muntaxa sëñ Abdoul Ahad lay gis ci biiram nee na ma man bu may xool sëñ Muntaxa sëñ Abdoul Ahad rekk lay gis ci biiram ba mu jeex ndax moom dafa bëgg sëñ Abdoul Ahad ba lu mu xool sëñ Abdoul Ahad la ciy gis loolu am na ay ay ay ay ay ay tomb yu mu daan wax ay kàddu yu gàtt yoo xam ne nii da daan orienté nit ki sëñ Jibril bëgg naa bu ma demee ci vidéo ba ñëw nga wax ma tey boo ma doon dëppaleel sëñ Abdoul Ahad moom 89 ak Sëñ Abdou Lahad 2021 tey boo indi woon nga xam ne tey dafay mel ni contexte yi moo tax bu sëñ Galas ne dafa dippi sëñ Muntaxa mun Muntaxa dafa dippi Sëñ Abdou Lahad sëñ Muntaxa nii mu yore yoonu murit yore ko lislaam ji yore ko réew mi ba nekk solution réew mi solution réew mi mooy Cheikh Mahamadul Muntaxa parce que tey day régler réew mi fi mu toog boole moo mooñum gu baax gi sell gi waaye nag mu bàyyi fi koo xam ne lu jëf rëy rëy rëy rëy waxuñu da ca bokk muy sëriñ Sidi